aja jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di delluwaat ku nekk sa wàccuwaay amaat kontaan ak mbégte bu baax a baax ni ma ko faral di def ak euh, sëriñ sépp tey ma fas yéene dalaat beneen kilifa di kàngam tey nag du njël benn émission ci site bi ndax euh, mos na fee jaar tey nag ñu fas yéenee waxtaan ci ponk yu am solo rawatina ñaan bi muy def ak paj bi ak li nga xam ne saa su nekk mu ngi xew si ci biir réew mi euh, di actualité kooku mooy Cheikh Mouhamed Diop ñu fas yéenee dalal ak moom ñu waxtaan ngir yéen ñiy taataan ngeen am lu ngeen jëriñu mu bala nga nuyoo mbokk askan bi aywa auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi bi di leen dalal di am mbégte bu rëy rëy rëy rëy ci tawgaay bi ñu amaat beneen yoon ndax mooy li may faral di wax waxtaan ko la ci wari dalaa bëgg a dimbale ndax fépp fu ñu la woo nga xam ne boo joxewul xam-xam di nga jël xam-xam kooku bëgg na laa dimbale te kon seen yéene bi dañ koy rafetlu rek bisimilah di wan ne àdduna ngeen yéene ñu dégg kon bisimilah ci kàttanu yàlla incha allah ñu waxtaan ci jàmm ak salaam jërëjëf euh, Cheikh Mouhamed Diop ñu ngi lay fay comme ni ma mhm. koy def ak sa naataango fa siine laa dalalaat mhm. nga am lu may lay laaj nga may tontu ñoom ñi taataan am lu ñu jëriñu aca mhm. moom nag euh, jot na fee jaar mais génnam yombut ndax da am jot euh, ndax dañuy dégg lu bëri da koy tukki ci biir réew mi ak bitim réew di wër maanaam loo xam ne saa boo ñëwee rek ñoom dinañ am ci loo xam ne ñi ci jàpp ci biir tukki boobu nag am na lu ma dégg yàlla da la koy may ci biir tukki bi ndax bokk ci mbiram kayit dégg naa yàlla may na la ci bu baax bu bëri ñu koy waxtaane gannaaw tukki bi ñëw dugg génn bi fu ne nga jaar fa lan nga hmm. leen mën a indil ci mbiram kayit am na lu la ci yàlla dénk. aywa alhamdulilah sa laaj bi am na solo ñu ngi koy rafetlu hmm. waaye dafa fekk ni doomu aadama bi léegi-léegi jot mën naa ñàkk li koy waral du bari rek lenn la rek la muy gis nga boroom xam-xam warul wéer alliwaam hmm. képp koo xam ne yaa ngi woote ñaan yàlla xamal ne sa jàng du jeex ba ilaa yow mitin mhm. ndax waxtu bu nekk rek di nga dajeeg doomu aadama boo xam ne wute na ak bi nga daje woon te waxtu bu nekk di nga dajeeg doomu boo xam ne li ko teewoon li ko tënk wute na ak li keneen mhm. te euh, Maulana Cheikh Ibrahim wax na mu ne euh, ut xam-xam jar na dem ba Chine léegi-léegi nag ci tukki yu fasantikoo yu bari yooyu lenn waralu ko rek ngir lu dul yóbbu ay njëriñ waaye tamit dem indaale ji ay xam-xam mhm. ndax nee naa la képp kuy woote ñaan yàlla sa alliwa du wóor ba illa yawmi diin mhm. ndax waxtu boo xëyee dajeeg lu bees waxtu boo xëyee dajeeg jafe-jafe bu bees mhm. donc tukki yi looloo ko waral euh, déplacement yu bari yi looloo ko waral waaye nag comme li nga wax ci wàllu kayit damay faral di wax ni doomu aadama lu la jafe rek maanaam ah, mënoo ko bañ a yombalal nit dina jafe bu fekkee jafe na la. yàlla dañoo dimbalee taw féex tukki lu muy bari bari fu nekk ci àdduna bi. yàlla moo ñu dimbaleel yoon boo xam ne ci wàllu kayit. bi nga xam ne fépp fu mu mën a doon ci àdduna bi su ma la wanoon suma passeport di nga ko gis. amul tàmp jeexal naa ñaari passeport. loolu nag dara waral lu ko lu mbaax gu yàlla mayee mbaaxalal ma ko teralee ma ko man it ma albatiwaat di ko delloowaat jaamu yàlla yi ci mbir secret boobu nga xam ne defal na ma ko mm-hmm. moo waral Cheikh Mohamed Diop mbiri kayit képp comme ci jëflanteel mm-hmm. dala koy garanti insha allah bu ci jëflanteeg yow mm-hmm. balaa mat weer ci kàttun yàlla insha allah nga am kayit bépp boo soxla ci kàttun yàlla loolu moom jagle la te yàlla yàgg naa jagle yàlla yàgg naa dimbale ñu ngi koy sant yàlla waaye tamit di ko yombalal mboolem doomu aadama boo xam ne am nga yitte ci loolu jërëjëf Cheikh Mohamed Diop aca yéen ci mbiram kayit muy dëgër di client ngi noonu di daw ci suufu baar d'écran bi woo leen ko ngeen jëflanteeg moom mu defal leen ci tawféex mm-hmm. aja mm-hmm. damay ñëw ndax ci beneen kii nag ndax mm-hmm. lii may laaj moom bëgg naa ko sama mbokk yi bëgg nañ ko dañoo dégg yàlla dalaa dénk lu bokk ci sirru xaalis gars yi dañ ko soxla jamono di toll loolu ñaan bi ci mbind nga koy def wala jinne moo la ko jox aywa alhamdulilah sëriñ bi ñu ngi sant yàlla julli ci yonante bi euh, di wax ne mbiri xaalis dafa nekk doo loo xam ne doomu aadama bu mën a xëy yitte bu mu la rombee rek mhm. jàppal ne xaalis a ci biir mhm. dégg nga euh, yitte bu mu mën a doon rek nit romb la rek jàppal ne xaalis a ci biir ak yaa xam nga lu muy doxi wala xamoo ko jàppal ne daal am am mu ci biir mhm. ndax yàlla dañoo bind te dafa am lu mu ñu boolowaale te ut dara ak am dara boo xoolee liggéey li tax ñu koy def jaamu yàlla maanaam am dara day goreel nit am dara day tax nit te loxoom du sàcc. Mm-hmm. am dara dina tax léeg-léeg nit du njaaloo am dara dina tax léeg-léeg nit du fen mm-hmm. am dara léeg-léeg dina def nit gor kon jullit xan mm-hmm. bokk na ci mu doon gor mu xam lu mu moom xam lu mu moomul te loolu dara dina jafe bu fekkee nit ki mu ngi bëgg dara du ko am kon ndekee ut alal dégg nga maa ngi dégg benn xissa dama fàtte ban yonent moo ko wax mu ne Euh, ñàkk bu doonoon jëmm mhm. dinaa rocc suma rayante rayanteeg moom kon ragal ndax ragal ñàkk léeg-léeg nag moo waral sëriñ bi buy buy ñaan yàlla war naa fexe ba dox ci li nga xam ne mooy yitte jaamu yàlla yu la ëpp solo fii lu fi waay sàkku ci xam-xam yàlla may la ko bi ñu xoolee nit ñi seen jafe-jafe ëpp lu ñuy wax ci wàllu alal dañoo concentré bu baax ci nit nan lay defee ba am alal ndax yàgg na nit di dem ci nit amul dara jóge fa yàlla may ko dara yàgg na nit di dem xeebu lool jóge fa yàlla yëkkati ko ndax fii lu fi jalu rek dañ koo loolu cosaan la léegi nag am nañ ci secret yu wute am na secret bu ñu lay bindal jox la nga sangu am na ay sungu fu lay jox waaye doomu aadama bu nekk ak sa bunt li koy tijji dégg nga léegi nag am nañ secret bu gën a gaaw boo xam ne nekkuñu ay doomu aadama waaye ay rawxaan lañ ay jinne loolu man yàgg naa ko wax loolu ci suma maam laa ko donnoo nga xam ne euh, bi may nekk xale ba tey maa ngi fekkee suma ay waajur di ci jëflanteeg ay nit di leen dimbali ci ay teraanga yooyu léegi nag yàlla dafa bind doomu aadama bind jinne mm-hmm. kattanal ko kattan goo xam ne xañ na ko doomu aadama mm-hmm. dégg nga yàlla mbooleem kattan may na ko jinne lu dul aadimati yotu mm-hmm. maanaam sa mi mbalam delle mim delle bi booy xool li nga ëppalee jinne loolu la li ci des yëpp moo la ko ëppale moo tax ñu mën a melokaanoo melokaan yu bari moo waral ñu war a soppeeku soppeeku yu bari moo waral ñu mën a def yàlla moo leen may loolu dégg nga mm-hmm. waaye tënk na leen ndax am na ay jullit am na ay ay sayatin mm-hmm. yàlla dafa bind jinne ak doomu aadama lu dul ñu jaamu leen mm-hmm. léegi nag doomu yi am na ñuy jaamu am na ñu dul jaamu jinne yi am na ñuy jaamu yàlla waaye am na ñu dul jaamu yàlla bis bu la yàlla dimbalee tàggatal la jinne yoo xam ne jullit akkan lañ ay sëriñ daara seen biir ay imaam ci seen biir ñooñu tey nga jëf jël leen tàggat leen ba lépp loo wax ñu def doomu aadama bu la neex ci kàttun yàlla nga bëgg ko taqaleeg ñàkk ba ilaa yow mi diin su la neexee mu tàqalikook ñàkk sa loolu secret bu wër la du xëram mm-hmm. du lu yàlla bëggul tur yàlla kese la mm-hmm. ndax rawaxaan bi wax li ñuy wax ak moom kurus la ñuy waxeek moom amul langue bu ñuy wax ak moom wolof wala langue bu ñuy wax tubaab rawaxaan boobu bu ñuy waxal wala ñu bëgg koo woo jinne kurus lañ lay wooyee kurus la ñuy waxee yow te kurus yi tudduñ ci lu dul yàlla ba jàkkaarloog yow wax la soxla nga faj ko kon lii la am nañ ci yitte ab soxla ah, yoon yu gaaw yu barke yu yàlla gërëm te képp ku ci ñëw ñu jaare la foofu nga tàqalikook ñàkk ñu boole la ak alal ba ilaa yawmi diin mm-hmm. incha allah aja Cheikh Mouhamed Diop jinne yooyu ngay jëflanteel est-ce nañ ndax euh, sacrifice aussi laluwut ci biir déedéet wax naa la léegi sacrifice euh, raxu euh, amu ci mm. maanaam xàmmee jinne yi ngay jëflanteel ak ñàkk koo xam xam nga dama bëgg nga xam fii lu fi doomu aadama bëgg ci jaamu yàlla ci alquran ci yonent am na jinne yu mel noonu mhm. dégg nga yàlla dafa wax yonent bi xul uhiya ilayya annahu ustama nafarun min al jinn mhm. del jàng alquran ci kaw te bul gaaw noppi ndax jinne yi dañuy taxaw di la teetaan mhm. te seen xol day sedd ba duñ bëgg nga arrêté waa ku am jinne yu mel noonu nag est-ce que dinañ lor doomu aadama am na ci ay jaamukatu yàlla akkan boo leen dàqute jaamu yàlla mënoo leen sant ñu def ñooñu boo leen tàggatee jaar leen fi ngeen jaar ndimbal rek la ñu doon te du ànd ak lor reyuñu deret bu pour tuur deret bu bon dégg nga xaramuñ tur yàlla kese la la ñuy zikar di ko zikar ba dajeek moom wax ko soxla mu faj ko te loolu yàgg na fi bëri na ay kilifa yu koy jëfandikoo fii ci réew mi ñoo xam ne mu doon seen tur nga xam leen mm-hmm. alalu jinne lañ yore ñii am na ñoo xam ne may naa leen soxna jinne ñu takk leen yóbbu seen kër di say ak ñoom man mii di wax ak yow nii amul sëkk sàkk ne li ma lay wax nii dara du ko dindi man yàlla dimbale na ma mbir boo koy wax bala nga naa naam ne fa mm-hmm. alhamdulilah waxtu bii may wax amul lenn loo xam ne rek bëgg naa ko te yàlla mënuma ko may mënul ne dégg nga yàlla dimbale na ma ci bu dee mbir alal kese kese kese mm-hmm. alhamdulilah saa soo ma gisee may génn waxtaan ngir dimbale doomu aadama yi njëriñ bi nekk ci man ma dimbale ko mu rogaan ci ñoom waaye amul sëkki sàkka waxuma benn yoon lenn loo xam ne ngir sàkku alal la lu dul ndimbale doomu aadama yi amul sàkk jërëjëf Cheikh Mouhamed Diop aca comme ni ma leen ko waxee ci sama intro rek ngeen xaar euh, vidéo bi ba mu jeex dinañ waxtaane am na loo xam ne wër nañ koo waxtaane mu mhm. di juge bi nga xam ne moo di Samba Sall mhm. euh, wàññeeku na am na lu mu mhm. war a wax ci biir nag topp leen vidéo bi maa ñëw ci kanam léegi aca fi may duggaat bokk na ci maanaam mbirum njibar foofu it mm. bëgg naa xam maanaam koo xam ne njibar da koo jàpp nan lañ koy xàmmee ak lan nga ñu fa mën a wax. waaw jabar am na te lu yàgg la te boo xoolee yonent bi sallallaahu alayhi wa dafa doy misaal ak jàngale ci doomu aadama bu mën a doon waxuma jullit nga xool ne yonent jàngal na la ne àdduna dafa yombul àdduna dafa tëradi te àdduna moog natt yi ñoo ànd. Mm-hmm. gis nga yàlla bu amoon ay bànneex kese. yàlla soxla konoon du jugee ci wéetaayam ndax yàlla mooy bànneex yàlla mooy lépp yàlla dafa mat sëkk yàlla bu namee tajli ci doomu aadama yi rek am na lum namm wéttalikoom boobu wéttalikoom boobu nag yu bari da cee ànd nattu yi ngay gis ci la ànd bànneex ci ànd mooy mboolem feeñuwaayam mm-hmm. doomu aadama boo xam ne yaa ngi ci àdduna te pare woo ne xam ne nattu am na yow mataloo yàlla yàlla da koy matal njëkk dog koo mën a jaamu mhm. te matal gi ngay matal yàlla njëkk bokk na ci xàmmee ko ci feeñuwaayam bii di la bégloo mhm. waaye xàmmee ko ci feeñuwaayam bii di la merloo muy yàlla mi la bégloo fii léegi moo la feeñu fii merloo la mhm. léegi nag ci mbooleem tëbb yooyu noonu war ngaa mën a xàmmee sóoraale jamono ne lii kat ndekete moog yàlla ànd te wax dëgg yàlla góor góorlu ba mboolem feeñu waaye yàlla yi nga nangu ko mhm. ginnaaw bi nag yàlla wan nañu nu ñuy def adduuni astajib lakum dégg nga loolu dafa leer ñaan rek mooy maye mhm. te àdduna xare la bëre la yonent bi nee naa la su ko neexoon dund ba dee du dëgg sax xeer bu koy gaañ ndax mooy imaamul mursalina yàlla da koo may lépp lu mu bëgg mhm. waaye mbooleem fu mu jaar waajal jullit ji la ba jullit bi bu toogee yegg si si nattu xàmmee ko mhm. xam na yonent jaar na ci yonent xiif na amul lum lekk <laughs> xiif ba sonn amul lum lekk yonent daan na daj lu ne amul lum dajul ci noon te yonent faatu na mhm. kon loolu moog jamono ànd léegi nag ku bëgg mucc ci jafe-jafe yooyu da ngay aar sa bopp olof moo ne gàllaaj du wallu day fekkee gàllaaj doo bàyyi ba dara ñëw nga ne danga koy wuti mu lay wàllu déedéet day fekkee dooga mu am njëriñ maanaam gàllaaj da lay fekk nga toog lu ñëw mhm. mu dellu waaye lu bëri dañu bàyyi ba jafe jóge ñu ñu dem di wuti gàllaaj gàllaaj du wallu dafay fekkee ba pare dégg nga kon loolu dama lay xamal ne la njabar lu am la yonent bi jàpp nañ ko ci njabar mhm. jël juróom euh, fukki euh, fukki pepp karawam ak benn jàpp ko ci yenent salaay sallam bi mu ko waree saafara ci falax ak naasi lu ko waral ñaari saar yooyu soo leen boolee fukki aaya ak benn léegi kon yonent moom moom moom falax ak naasi ñu koy woyee muaz tayn nga kon yonent salaay sallam moom moom loolu amul sikk léegi nag yow su ma la jàppee tey ñëw fekk la sa yére ma jël ko jàpp la ci est-ce que falax ak naasi mën na la saafara déedéet su ma la ñëwee jël sa dàll ma liggéey la ci mënul ne lu ne dafa am jagle lu ne dafa am nit bu ne dafa am tabia am fu ñu koy jaar pour mën ko jàpp kon njabar lu am la waaye tamit da nga ciy déggee ne saafara lu am la te gàllaaj lu am la mhm. dégg nga kon ci biir loolu ba tey pour wax nit ki war na mën a aar boppam aar gàllaaj gis nga lii di làmmiñ ak bët mhm. comme gàllaaj lañuy ñuy wax rek ba tey cat dafa am solo mhm. ndax cat bari na luy màgg ñu xëy rek mu taxaw cat ko taxawal bari na luy dox ñu tudd ko mut am na ñoo xam ne seen wërsëg làmmiñ da koy jiitu te wërsëg bu làmmiñ jiitu day mel ne yoonu ndox maanaam boo xam ne dangaa teg xeer rek si biir du yegg si dégg nga yonent bi salaay salaam muslu na ci làmmiñ muslu na ci bëtu doomu aadama dama lay wax ne yonent bi nekkoon na màkka sonn fa sonn boo xam ne waa màkka dem nañ ba jël am benn xeet ci jamono yonent bu ñu doon wax ban ñaaxaset ñooñu seen jamono luy seen liggéey lu ñu xool mu yàqu lu ñu wax mu yàqu bi waa Màkka yonent bi sonal sonalee dañoo dem jëli ñu fay leen pour ñu ñëw jàkkaarloog yonent di ko xool di tudd ay mbiram rek. Mm-hmm. waral ñu xiifal leen xiif boo xam ne doy na waar maral leen. lépp ngir ñu war a jàkkaarloo yonent bi ñu ñëwee jàkkaar yonent alxuraan gi mu doon jàng ñoom seen nopp yi mënu ci woon dugg dañ doon yuuxu mm-hmm. ne kàllaamu bu mel nii mosuñ ko dégg ak lii ni muy def ci xol noonu lañ la yonent muccee ci ñoom kon njabar lu am la mhm. waaye saafara am na waaye nit mënoo ko defar te xooloo mbiram euh, tas ko dépiécé ko comme loo gis fii ñu ñëw indil la ko réparé tele nga toj nga tas ko xool lii lu yàqu fii lu yàqu fii ndax doomu aadama boo ko bëggee defar danga koy tas ba pare xool luy njëriñ nga xëcc lépp luy lor nga dàq njabar am na waaye saafara am na te képp ku ko bëgg boo ñëwee incha allah ci kattanu yàlla. Mm-hmm. yàlla mën na laa dimbale nga mucc ci mboolem jafe-jafe ci àdduna. Mm-hmm. incha allah. atia jërëjëf Cheikh Mouhamed Diop àgg nañu suñu cappaandaw émission. Mm-hmm. fi may jeexalee bokk na ci dese bii di Juste Samba Sall nga xam ne rëkk démb rek la wàññeeku. coow li nag na ndax dëj bu ne jaar na fi waaye lii di dese bi moom bëri na coow. lan nga ñu mën a wax ci dese bi. dese bi li ma ci wax lu dul yàlla. amul waxtu bum dul rey amul waxtu bum dul juddal maanaam àdduna loolu mook mook àdduna ñoo yam mbindeef néew na nga rey doomu aadama yàlla rek moo yor bakkan te yàlla rek moo sañ a rey mhm. dégg nga te dee dafa jiitu dundu mhm. xalaxal mawtu wal xayaat dee dafa jiitu dundu kon lépp loo gis ci àdduna dafa tom dafa jaar tamit ak ndogalu yàlla ba noppi mm-hmm. li may wax ci loolu mooy mm-hmm. nit mënulut rey nit dara déedéet mënul nekk mm-hmm. nit mënul rey nit kenn mënul def nit loo xam ne wax dëgg yàlla àndu yàlla àndu ci seen juge euh, juge boobu ngay wax bësu dee moo yegg si bés boobu la waroon faatu ala kulli haal faatu na am na ñeneen ñuy des ci kanam ñu war a faatu ñu ko am na ñu ko ñu faatu avant moom ñu ko jiitu kon ala kulli xaal lu ñëw dañ koy delloo ci yàlla ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko ñaanal ko yàlla yàlla xare ko àjjana ndax yërmande yàlla gi ku koy wàññi mooy ku xamul yàlla yërmandeem weesu na loolu yàlla yërmandeem weesu na ku mën a doon mu jéggal la ak lu mën a doon kon nañ rafet njort ci moom xam ne ci liggéeyam la ne te doomu adama léegi-léegi yàlla dina la nattu ci sa liggéey te nag dëgg-dëgg wax dëgg yàlla nit ku ne la nga fas sa xol muy lu wër ngay doxaale ak moom mhm. yow ku ci dugg rek naa fekk la yàgg yàlla rek ko xam ndax ku nekk lam la rombee fas ko ci xolam xamoo ko mhm. kon ci liggéeyam lam ci doon def am nañ ci rafet njott malgré li fi xew bari na mhm. réeroo yu bari na waaye yàlla rek moo xam li nekkoon ci xolam ak nan la daan doxalee kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko euh, sàmm njabootam suuf sedd ci kawam dégg nga ba ilaa yo ba yàlla yërëm ko ba dugal ko àjjana ci barke alquran loolu laa koy ñaanal yàlla moom si sàmm lañ nga mën a tàggatoo loo gis ci réew mi jamono ji waa réew mi li ma ci gis mooy euh, alhamdulilah jamono yi ci ginnaaw yëngatu na ñu ngi sant yàlla ba yàlla saafara na ko mm-hmm. waaye nag ku nekk waaj waaw wàccaay dafa baax ndax am na jafe-jafe yoo xam ne soo ko waajee rek su ñëwee du la gaañ mm-hmm. waaye nit lu la bett rek da mën ñun ci yàlla lu may mm-hmm. tiitaluñ kenn waaye daal maa ngi dénk sénégalais yi ku mën a doon. Mhm. nga bàyyi xel sa moroom. ba pare jiital yërmande sa diggante ak sa moroom. ba waxtu bu jamono yëngatoo. Mhm. yërmande boobu mooy tax kenn du gaañ sa moroom. ndax lu jamono metti metti lu xol yi tàng tàng tàng. Mhm. yërmande rek moo ci man dara. yërmande. yërmande fu mu ne dara du tàkk kon na nit ñi di laabal xol yi di ko jiital xam ne jamono ñëw réew mi dana gën a yëngatu. te man maa la wax lii waaye nag ku nekk waajal sa bopp dalal sa xol laabal ko ba bu yegsee rek yërmande dominer loolu lépp te yërmande fu mu jiitu rek raw yëngu bi fi amoon fan yi mën naa ne lu ko raw lii man maa ko wax te lu ñu yàlla woon la waaye waaye nag saafara bi tamit am na mhm. bu fekkee jullit yu ne ku mën a doon ci àdduna bi mhm. yaa ngi dalal sa xol bi di ko laabal ba lu mën a ne rek nga am yërmande ci sa morom. yëngu-yëngu boobu ngay wax ban xeetu façon yëngu waaye li mooy li xewoon fii rek mbiru politique rek ak réew mi rek. Hmm. ndax gis nañ mbir mi fi mu toll te ku nekk jaral na la loo xam ne wax dëgg yàlla li ñuy def ci suuf. Hmm. bis bu tàkkee. Hmm. maara day taali waaye yërmande boo ëpp doole. yàlla bu nammee yërmande ci ñun. wallahi lans gën a ci xolu jaam bu ne da lu mën a am xool sa morom gis sa bopp ba di ko baal ba dara du xew incha allah. jërëjëf Cheikh aywa salaamaaleykum.